ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne tey mooy fi Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool tam ànd ak wér ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam mu àggale ko mu leen di sant bu baax di leen gërëm ci fu ngeen teew fu ngeen teewut tàmbalee cant gi nag ci Serigne Abibou Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne mooy seen jëwriñ moom sax xam naa ne bëggutu nekk seen kii waaye dafa bëgg nekk seen jëwriñ ndax loolu lay dund. ak mboolem bokk yi mu ko àndal di sëriñ Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Abibu mi nga xam ne sunu waajur ak euh, sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh naa loolu jarbaat ak sëriñ mm, sëriñ Modou Seck moom bàyyi ñëpp xam nañ ko ak sëriñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne mooy itam taxawaayam ràññu na ci ak mboolem euh, sëriñ sëriñ Cheikh naa du surtout sëriñ Abdou nga xam ne mooy itam maamu ñëpp xam nañ diggam ak sëriñ Touba. ak mboolem ñu ko seq di taalibe Sëriñ Tuubaa di yëkkati seen alal di ko ci def di ko jaayante gi Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm te di leen ci soñu te ci rafet njort itam ndax li ëpp solo rek mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa xolam la lam jublu te jublu na ko soññee yi mu ci def ba mu doon ko Sëriñ Tuubaa ñëpp dëgg nañ ko bi mu nekkee Sëriñ Tuubaa da ko yokk kon loolu tawféex la jox ne ci wàllu positif dara waru ko ca jiitu taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi itam nangu nañ ko te Sëriñ Saliou Mbacke daan na wax ne xolub taalibe yi fu ñu jëm rek fa la bëgg suñ bi jëm kon rafet nañ ci njortu ci liggéey bi wax naa leen démb itam ne leen seen liggéey bi de lu ngeen ci góor góor góorgóorlu doyut ndax yaakaar ni ñëpp da ca des ndax. Euh, sëriñ Abdou dafa am lu am solo lu mu daa daa wax ne ñi lay xëy si ñaar lañ mooy ki nga xam ne dafa tëdd bu guddi mu am soxla ak jaaxle xalaat ba sonn xelam mépp dajul pour yow mu xëyee la nee neen rikk waaye na nga fexe ba kooka yaakaar ñu mu tas nee na ki la gonte itam dafa xëyee woon ci barab yaakaar tas fa mu ñëw ci yow kon yéen na ngeen xam ne ñaar yooyu rek a daje ji ku yaakaar ni ci yéen ak ku yaakaar tas ci barab mu ñëw ci yéen rafet nañ jort ci ne yaakaar ju tas fi ma ko tegit mooy gis naa ne li yàq mbooloo ñëw ci bëgg àdduna ñëw ci njistal ñëw ci naw jëf ñëw ci politique ñëw ci te yooyu mooy yi jaxase bokk di jaxase mbooloom Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa mbooloom dara da ko mënta rax lépp lu ko rax rek mu bàyyi leer loola nii moo ko gisee ne kon dam dañ leen ñaal ndax seytaane kat fu lu baax juge mu jug ngeen gàttandu ko waaye yéen fii ngeen jëm ñëpp ci dalum xel rawat na Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk Sëriñ Tuubaa mboolem ñim seqa liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi itam ñëpp la ci seenum xel dal ñëpp ci rafet jot kon ñi leen di ñaal fa fa ngeen bëgg ak ngeen àgg fa ndigal li nga xam ne jox na leen ko nag mooy ngeen seet nu ngeen gën a mën a dimbalee quartier yu sori yi mooy sancaan yi ndax yëg na ne néew doole gi ci ñoom la gën a jëm ndax bari na ci ñoo xam ne mën nañu jox ay dox ay kilomètres di wutum ndox loolu nag métti na te moom wax na ne bo da ko boole ci ab liggéeyam boo xam ne bokk na ci séene sumb waaye kon nag comme sumb yu bari dafa nekk ci kanamam muy liggéey ñaari jumaa yi ak université bi ñu bëgg a tàmbali mu ne bu tàmbale yooyu ba fas na ci yéene jublu waaye kon nag yéen ngeen jiitu ko ci gàttandu ko ci liggéey boobu bii nga xam ne fas na ko yéene ànd ak taalibe Sëriñ Tuubaa yi yéen na kon jox na leen ci digal lépp lu ngeen ci man ci taxaw ci fexe ba nit ñi gàddaayoon ngir yaakaar Sëriñ Tuubaa te sëriñ bi ne Tuubaa ku fa xel indiwul ku ne saw xel dina la fa indi ngeen fexe ba yaakaar jooju yii ba tas te xam ne ndox mi kat Sëriñ Tuubaa ñaan na ko suñu borom ba may ko kon nag képp ku jóg ngir gàttandu ko na la woon dañ ci am tawféex ndax danaa koy nettali serigne soy bi da wax ne serigne touba dafa nek ci njaarim da def ku bayiko touba nak bo ak selu mbolo mi bari bari bala wax kenn day wax ne man nañu jugi sama dekk bu tedd bi mu accé mu ne ana sama dekk bu tedd mu def mu nako mbakari ñang koy def waaye xana ñakum dox lool mu ne ko bi ne ko lool de des ni dir bu gatt jeex na koko def ko desee xam waxin noka mbakari ah lu ko guddu fan lool lu ko fekke mu ko ku gàttoon du fekk dara kon nag loolu na leen wóorum du agsi na waaye nag wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun suñ borom li yàgg ci doomu aadama bokkut ak bokkut ak li yàgg ci moom ndax doomu aadama lu su kumpa rek yàggatul ci yow kon loolu Sëñ Tuubaa euh, ba muy wax ne Tuubaa dana mel nii ci téeméer at boo képp koo xam ne amu woon basiratu boo la ko waxee sam xel boo amoon poussé wala nga xam sëñ bi dana la jaaxal moo tax dana Cheikh Mahoud Moustapha fii la ne ci bayti am kuy jàng baytu wa caa bii daari yekkal madina barakatan wala kaabatan masuuna kooku ne tekk mel ni ko xaw a sikki sàkk suñ Mahoud Moustapha ne ko mbaa danga koo sàkk moo moo xaw a nakk nakk mu ne ko li ma Sëñ waa wax te ma teg sabet li ma wax te gisaguma ko la gërëm ne ko bu ma yoroon kaasu kafe mu wóor man lii kaasu kafe la ma Sëñ Tuubaa wax te gisaguma ko moom la gën a gëm kon nag lii moom ndigalu Sëñ Tuubaa la te Sëñ Tuubaa waxoon na ne waq di si lasina daamu fii xidmati wa hab lahum ma kon nag na ngeen rafet njort ne lépp lu ci waa jëf dañ ci daje fayu ko aajo te loolu moom la ñuy sàkku ci àdduna moom la ñuy ci àlaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullah